moom la ñu daal dee jox yeneen structure hors de la presse ndax ndax niñ ko defee ci presse bi noonu lañ ko war a defee ñeneen ndax si ngi li presse bi takk bët loolee moom tegul fenn Moussa Bocar Thiam parle de stigmatisation stigmatisation boo di compté dëgg nag la ñu daal dee def ñi nga xamante ne ci ñooy ñooñ taskatu xibaar boobee jamono Walf Fadjri quotidien yéene wa Ousmane Sonko jël na revanche am mu koy sabuuri naka ci kanamu xalif général naka des mourides ndax heure bi daaw boobu Ousmane Sonko mu ngi ci xat-xat bu talut na daalam dem ca Touba ngir rek amal ab ziaram le quotidien ni kaay ne gannaaw téeméeru fan naka ci pouvoir bi de tension dëgg nag moo am ci réew mi yéenekaay bi moo ngi lim nee na am na jafe-jafe wàllum tasum xibaar waxi noppi entreprise yi kenn waxaaliwu ko diplomatie moo ngi sooxe front en souffrance yéenekaay bi ne fi ñu a ngi tàng ci nekk nag amagum nañ ko saafara enquête yéenekaay di xëy a gën enquête ne offensive dëggaay moom la sedef si def ndax patronat boobu fi ñu nag nee na mauvaise bi nga xamante si ak manipulation diabolisation doon ngay bëgg a ngir dajaloo nag ngir xool nees war a def ba défendre entreprise yooyu yéeni cabinet pression sur les fonds d'appui à la presse yéeni cabinet fi daanaka la bëgg mooy teg bët dëggantaan naka taskatu xibaar waaye la wax nag daanaka amul lenn lu dee tego kii ji njaag te mooy njaag Alioune ministre bi ngàlloo wàllum presse presse boobu nekk démonté nañ ko pièce par pièce tegoo ki ne nee ab campagne de dénigrement ak diabolisation Diagne ancien ministre de la communication moom indaat na ay dëggam ci dette fiscale bi nga xamante ne si ak 800 millions yéeni cabinet lépp la ca leen demoon maître Moussa Bocar Thiam dal ni koy leeral ndax moo nekkoon ministre de la communication ñu wax ci leen ak Fatou Aziz Dabala ak son fantuwaal yéeni cabinet njuuma crime nag ko moo jaar fee yëfi baadoola dëgg lañ dal ni kenn mënee su koo qualifié ubbil yéenekaay bi nee na Aziz moomee nag dañ koo jamate ay paaka laataa ñu koy sàng darab sànni ko si su ëtt boobee waali nag moom dañ koo jamate butti ko laataa ñu koy sànni ca de bain ba ab yoo xamante ni fekk nañ foofu ay traces yu bëri yoo xamante ni si mbir mi jàppante bu métti amoon na foofu nag ay débris savre indien ak paaka tournevis benn téléphone loolu yëpp nag gars yi teg nañ ko loxo mu nekk jumtuwaay nga xamante foofu lañ ko fekkoon ci seenu biirum néeg ci màggalu Touba gi yéeni kaabile de point nee na police foowul de màggalu Touba bi lu tolloog xamante ni si déployé ko police nationale naka bëgg gaa ñi si du am benn jafe-jafe yéeni kaay bi di kaat ci commémoration départ en exil du Gabon yéeni kaay mu nekk nag mbir moo xamante ni si buñ ko sukkandiko woon mun nañ cee jaaree am jàmm ak dialogue boo xamante ni si réew mi du am benn ak jafe-jafe yéenekaay bi turbine moo xëy duñu ko fasale nee naka bu ñu tegoon ci tànk Serigne Touba Sénégal du mës a dégg joote du mës a dégg jafe-jafe waaye fi mu ne nii kenn xamul nag ngoyoo ngoy booti doomam mbir yaa ngoog ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba